buur mm-hmm. affaire Bougane Gueye bi xaw naa indi coow lu bare. coow waaw indi na coow lu bare bari. jaay doole gisiwuma ko man jaay doole. Mm-hmm. Bougane ci boppam moo nekkul ci dëgg. dafa ñàkk ñu ko conseil Bougane ku koy dimbale nañ ko dimbale ci ay conseil daanaka day tëñëx tëñëx rek xamul fu mu jëm. te bu mm-hmm. deful attention bu deful attention. carrière politique am mën naa yem fii te kooku du du du avantage am il faut que mu am ay conseil yu koy dimbale. Mhm. mu mën a dem. xoolaat naa ko ba tàyyi waaye lama la ci waxoon rek gis nga Modou ngir nit jàpp ko ci maa ngi dégg naa ay sëriñ si suy wax ngir nit jàpp ko ci gàllaaj lu jafe jafe jafe lay doon. jërëjëf mbokk internet ci bu ngi leen di nuyuwaat di leen di leen ndokkeel del soit ak yéen ci beneen jotaayu xam-xam Serigne Fallou Dramé di sët sëñ Moussa Dramé borom Daaru Pakacam maamam la Cheikhul Khadim ne woon ne ko Moussa sama diggante ak yow dafa mel diggante jëmm la ak takk ndeer te yàlla def wajuram tey toog ci jalu wa di di alxalifatul amr uutu Cheikh Moussa ñu di ko ñaanal jotaayam bi yàlla sax bu saxee yàlla na wér bu wéree yàlla yàgg fi barakat Cheikhul Khadim bokk ci ñaankatu yàlla yi nga xam ne wala góor yàlla yi nga xam ne dama naan saa su ne man buur maa ko ci nangoo jaamu yàlla ci nangoo gëstoom ci nangoo sonn ci aajo jaam ñi lay lan wan xaram ci lu nëbbu ak lu feeñu mbiru Bougane Gueye Dany danañu ko waxtaane diggante Modou Xarañ Lo alias neexa faral dimanche manaan ko alias yaa oustaz ak ki nga xam ne moom mooy Siteu la Tarkindaa est-ce que am na ak coppeeku ndax ni ma leen ko waxee woon rek dañ koy topp man ak moom saa bu ñu gisee comme nañu toppee woon électorat euh, élection Diomaye ak Amadou Ba nañu toppee woon Boy Niang nañu toppee woon Modou Lo Ama Baldé dañuy topp jamono bu ne ba bu amee coppeeku danañu ko xam Cheikh Fall ñu nuyu la bàyyi la nga ñu lay seetaan ci biir promédia ak Bourguiba bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi wajhal kalaami rasidan wa mursida wa fikirati nawir wa xalbi arsida asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. suñ buur maa ngi lay dellu ab nuyu di nuyu mboolem li nga xam ne ñoo baaxoo di ñu topp ci sunu seen bi di bii Bprod Média ak fu ñu mën di nekk rek ci biir réew mi ak ci bitim réew di leen ñaanal ñoom ñëpp jàmm ak sutura ak xéewal akuk dal di leen ñaanal itam xel mu mucc yaram bu mucc njaboot gu mucc di leen ñaanal itam borom bi defal leen tawféex waaye itam niñ ko baaxoo ñaane réew mi nga xam ne amuñ meneen réew mu dul moom di Sénégal ñu ngi ñaan yàlla mu saxal fi jàmm saxal fi nattaange ak barke incha allah bismillah. sëriñ bi teg nañ ko loxo. ba mhm. finalement. Mhm. jàllale nañ ko ci prison bu Tambacounda. dañ Ousmane Sonko da ko ragal wala dafa njort ci ni Bougane mën na ko sonal waaye defe naa ne Bakel laa jëm rek damay dimbali ci sinistre loolu nag jaruñu ci technique boobu sama xalaat bu xam naa loolu de moom lu xaw a xoromu lay doon maanaam Ousmane ko war a mën a ragal Bougane. waaw waaye Bakel laa jëm de jarul tijaati xalaat Bakel laa jëm. waaw pour yow. waaw Bakel laa jëm. selon vous pour yow jaru ko. Hmm. waaye man defe naa ne da ngay xool ban circonstance la ñu ko kii bu fekkoon ne dara xewul. Hmm. wala boog président niñ ko waxee nekkul fa foog naa ne kenn du ko arrêté. sëñ bi loolu dëgërul de. xaaral rek maa ngi ñëw. Hmm, dëgëragul de. dina dëgër bu fekkoon ne président nekkul fa. Hmm. maanaam ñu jóg ak sax ñoom itam lu tax ñu tànn maanaam yëfi bi ma amee yàgg na. Hmm. lu tax ñu bàyyi ba bis bi fi nga xam ne wóor na leen ne président mu nga fa wala mu ngi fa jëm ñu tànn bis boobu maanaam yu mel noonu yu mel noonu day mel ni saaru sabotage lay niir doo xam daal luñ ciy jublu donte nag dañu gisee ne démocratie xajoo na lu nekk waaye itam état état la dafa am lu muy doxee. président ñun ñun mosuñoo mosuñoo ñàkk mais Macky nag bu daan xëy ñuy gont itam am na am na loolu daanuñu ko def liñ daanul def mooy. daan génn wax léegi Sonko génn tontu ko loolu moom loolu moom kenn bañu ko maanaam nit moom bu fekkee am nga jotu ku wax nga génn wax. na na fekk itam nag la ngay wax nga am élément yoo xam ne am ay matières yoo mën a sukkandiku di wax loo xam ne lii nit ñi dañ ci mën a jëriñu euh, waaye en tout le temps boo waxee rek naanaam li ngay wax ay reetaan lay jur loolu itam kilifa <coughs> war na ko moytu beneen bi ci des mooy ku xam président Ousmane Sonko di nga xam ne saa yu daan génn rek. génn gi dafay am fu muy tegee moo tax discours am da daan jàll ci ndaw ndaw ñi wax ma ndaw ñi sax da daan jàll ci population bi moo tax dañ ko daan consommer à 100 pour cent moo tax buugaan boo gisee ay discours am daanaka saa yu defee conférence de presse ba noppi maanaam du ñàkk ñu ci génnee di ko def ko saaru comédien te loolu baaxul baaxul ci moom. am na nag ñu gisee na xëy na mën naa am xëy na mën naa am ñu conseil ko wala mu gisee ko noonu defe na na xëy na lu mel nii daal di jéem a fenqante gi mel noonu comme moo ko usmaan Ousmane ko jàpp nañ la loolu moo ko mayoon doole naa jaar ci yoon boobu xëy na bu fekkee ne loolu victimation lay lay lay jur ci moom day jéem a victime wu su boobaa loolu dina ko may benn ampleur loolu loolu niñ ko jàppee mën naa bañ a demee noonu. waaye li am solo rek mooy président moom dafa dafa dafa dafa dafa am nu muy doxee te bu xasee dugg ci benn son rek. maanaam du lu ñëw rek ñu bàyyi mu jàll te te te parce que demuk bugaan gi li ci li ci xaw a doy waar demuk politique la mën nañ ko laytaayal nag que ne dañu dem pour soutenir wala pour dimbale wala pour mastawu askan wa fa nekk lu tax mu tànn bis boobu loolu tam mat na di laaj. ah kay ndax xam nga xam xam nga moom li mu waroon a def mooy bi ñu leen jéemee arrêté jéem leen di wàññi dañoo waroon a wàññeeku rek. ndax bu fekkee ne xam nga damay dimbali nit force nag loolu amul fenn nag waaw xaaral xaaral xaaral buur buur buur damay dem dimbali ji diw force hmm. te loolu di warteefu état état gis nañ lim ciy def ndimbal yam fa yóbbu donc yow mënoo fexe fexe fexe ba def fa lu ëpp loolu donte nag ku nekk ci ci ku nekk ci yi loo ko jox dërëm sa xeebu ko donc bu fekkee na yow dimbale rek moo tax loolu amul luñ ci forcé bu fekkee dañ la interpellé da nga war a taxaw mais nag boo bëggee forcé nag loolu leneen lay jur nag am na leneen lu muy jur am na yeneen yeneen article yuy lijjanti loola donc loolu beneen mbir la xan xanaa lenn lenn mooy bu ñu ko jàppee nag ba président jógee faak yooyu xëy na man gisoon naa foofu ñu bàyyi ko jorut lu téye waaw waaw waaye téye gi nag moom lu mënuloon ñàkk la. sëñ man moom convaincre ma de toute façon ah waxi sëriñu Pastef nga fi wax rek ndax yii fi xew xewoon na fi xewati fi te yéen da ngeen ko gisee woon comme injustice tey Ousmane Sonko moo nekk ci pouvoir bi l'avenir nous le dira beneen bi ci des bi si taam na gëm-gëm. Mm-hmm. man loolu moo ma jaaxal. waaw. Siteu am na gëm-gëm lool Siteu dafa mel ni. Mhm. ba ci ay sax bu ñuy wax dañ naan. Mhm. Siteu mën naa dóor mu ah, loolu de xam naa ne làmb moom surprise bu ne mën na cee am waaye boobu nag moom am na loo xam ne lu lu lu ah Siteu mu daanu. Mhm. xanaa ci gàllaaj la koy mën a jaare te nee naa Modou Lo moom xam na doo am de waaye jaar ko ci mystique ba téye ko loolu lu jafe lay doon te bu dee ci wàllu euh, xuwa itam kartan foog mën a Siteu ëppee na mootuloo doole ju mu koy dóor mu daanu nag mm. waaw loolu moo ci nekk waaye daal li ci am solo mooy Siteu niñ ko ko yombalee na ko bañ a jàppee noonu de yombiwul noonu de ah, moom du du mbër boobu dëgg yàlla bu ci génnoon lépp mystique sax Modou du mbër boobu du boo xam ne ñëw rek am ci moom dam ah déedéet mbër la bu dëgër yàllaa ko may xuwa may ko xereñte ci bëree may ko patience ci bëre may ko may ko may ko loolu nag bu ci boolee nag li nga xam ne moom laa am muy ndëkkër lay muy njiit laay bu dëgër dëgër ci li nga xam ne mooy wàllu mystique kooku ku la bëgg yombalal ne mën nga am ndam ci moom bëgg la ko yombalal boo ñàkkee combat bi moom moo la ko xeeñ loolu moom mooy liy dëgg. li tax mhm. ñu mhm. te xam-xam bi ci bëri bu wér. Mhm. ñaareel bi da ngay dégg ñu ne nit ki de faj naa rabam rawxaanam laa jàpp maanaam. genre xeet terme yooyu. dama bëgg rek ñu am ci benn sujet bu dëgg. waaw lu complexe la. Eh, xam naa lu benn philosophe waxoon laay wax bi ñu ko laajee lan mooy philosophe dafa ne non non moom sax moom ne moo ne. boo ko ko laaju day mel ne xam na ko waaye boo ko ko laajee day gis ne xamu ko mooy dafa xaw a complexe mooy yi nga fi tudd ni yëpp xam-xam la yu complexe waaye nag malheureusement dañu koy dañ koy foowee te ñi ci àddu ñëpp ñi ci xam lu wér lu néew a néew a néew néew la maanaam ñi ci xóotu ba xam ci lu wér lu néew a néew la ci xam-xam yooyu ki ci jàkk mooy xam-xamu biddiw xam-xam bi di di xam-xam bu complexe boo xam ni dafa am jeexit buur bu ama am doole. Mm. ci dundu doomu aadama. ndax nit ki damay faral di wax ne heure bi mu juddu heure bi laa moo xam jant bi mu fenk moo xam ci yoor-yoor gi moo xam ci bëccëg bi moo xam ci guddi gi. loolu lenn lu ci nekk dafay am jeexital bu ama am am solo. Mm, ci ci dundu nit ki. misaal ki nga xam ne dafa juddu ci waxtu nit ñi di dem xëy rek dem dem tool. Mm. <laughs> waaw gis nga kooku mm, nit la koo xam ne mën naa daj coono yu bare bari ci ci ci àddina waaw lu mu soxla moo koy wuti noonu nga koy toppee nag waxtu yëpp bu ko temps bi mayoon benn bu ci nekk mën nañ la wax ne ku judd ci waxtu wi lii mooy mbiram ku judd ci waxtu yi lii mooy mbiram nga xam ne jëmmi waxtu yi rek dafay suye ci dundu doomu aadama bi mm. te waxtu woowu nag biddiw moo ko ëmb maanaam biddiw moo ëmb waxtu mm. comprend nga li ma wax bu baax maanaam waxtu yi ñu ngi ci biir biddiw yi ndax kawaakib asayaara dafa am am lu ñu tuddee alburuj kawaakib asayaara yi euh, lu ci bëri moom la ñuy tuddee biddiw waaye dafay lu ama am solo ndax dafa am lu ñu tuddee al majmuhu euh, majmuhu asamsiya mooy jant bi ak euh, planètes yi nga xam ne ñooy daw di ko wër nii yaa ngi comprendre bu baax léegi nag jant bi yi ko gën a jege booy xool ñooy ëpp leer yi ko gën a dànd yi ko yi ko dànd uh-huh. léegi xatt bi nga xam ne moo jege jant bi boo xoolee ñi nga xam ne seen biddiw dafa nekk foofu seeni mbir toujours day leer mooy nit ñu am sens ñooñu rek mooy seen yëngatu du bari ci àddina seen coono du bari mais seenu wërsëg da leen di yomb lu ñu xëccoo itam dañ ciy gaaw a jot maanaam seen mbir yàlla ko leeral en fait loolu moo ci kii ki ci topp xaw naa tene ki ci topp xaw naa tene léegi nag selon ki nga xam ne par exemple dafa juddu ci biddiw bi nga xam ne dafa sëri lool maj ma xu bi par exemple nga jël lu mel ni suuxal nga xam ne koo sori lool. Mm. day nekk biddiw boo xam dafay lëndam léegi ki ci gane àddina da ngay gis na mbiram dafay difficile lool. Mm. ay fakkastal ay xat-xat. Hmm? ay mm. tumaranke dal na ci lee waaw dégg nga ba noppi xaalis du ko yomb te ba noppi toujours rek ci toujours foo ko fekk xol bi li muy neex itam du bari naqari deret lay doon waaye pour mu doon kilifa nii ku am dara ku mën dara nii mën mën na nag jàng doon borom xam-xam bu bari xam-xam waaye nag du doon ku ku am nu ñu koy tuddee dund gu nëttax wala xaalis wala ay obse wala nangam. Mm-hmm. ba tàyyi da ngay gis loolu. mën na doon commerçant dina sonn waaye du du am dara. Mm-hmm. da ngay gis ñoo xam ne moo leen njëkk ci millier bi jàngal leen ko sax ñooñu dañuy tekki kii ko yàlla def ci moom loolu. léegi loolu mooy li am ci biddiw yi. Mm-hmm. léegi nag loolu ku xam sa biddiw. sa biddiw mën koo seet ba xam ne yow biddiw sàngam mooy sa biddiw kooku moo la ci mën a dimbale te ni mu la ci dimbale itam ginnaaw bu mu ko xamee ba noppi il faut que mu xam ana wan waxtu ci waxtu yi ci la sa biddiw di fenq maanaam lu lay defal lu na rek ci waxtu woowu la koy dàkk même bu fekkee daf la bëgg a samp même bu fekkee nit daf bëgg a yàq nit sax mën na ko jaaree ci waxtu woowu day bàyyi ba biddiw bu fenq rek moo xam day koy daggal xaatim ci misaal nit ko xam na rek dafa ñëw na la man sàngam laay xëccoo nga xam ne lu muy xëccoo la loolu lu muy xëccoo la lu mu bëgg la ci foofu mën nga dagg benn xaatim salas yaa xam wala beneen xaatim booy dagg léegi nag nga bàyyi ba biddiwoom war a fenq nga dugal ko soron si jaada su ko defee nga liggéey liggéey liggéey loolu mooy li borom xam-xam yi di tuddee na mu ngi mel ne rek nga jël fet wala fetal jox ko koo xam ne dañ koo jàngal tiire mu mën ko lool mm-hmm. nga joxoñ ko dara na ko jam ko nim la wóoree na bu jamee du mooy loolu ngay defal nit kii itam ci xam ci biddiwoom noonu la mel maanaam li nga koy defal dara mënul tee mu am parce que day xam-xam bu sustu day xam-xam bu wér day xam-xam itam bu dëgër dëgër dëgër dëgër. léegi mën na dëgër mhm. mhm. mhm. baat bi laa soxla sax mu ngi noonu. léegi yow xam nga ab sëriñ nga. rasdu baat boobu moo tudd rasdu rasdu ci wolof mooy tëru tëru xam naa ñi dëkk ci àll bi ñooy xam li may wax. léegi léeg bu bu sàcc yi ñëwoon guddi sàcc sa jur gi léegi xam nga buñ ko sàccee ci foor yi lañ koy yóbbu wala boog dañuy jaar ci biir foor yi génn pour war a dugg beneen léegi yow comme wóor na la topp nga tànk ba dugg nañ ci foore bi yow da ngay fexe nga wëri fa ñu war a génnee ji nga tëdd foofu fay seen làmp nga xam ne mbooloo la ñu doon ñu doon wër sàcc bi ñëpp dañuy fay seen làmp ñoom ñëpp daal di tëdd léegi nag ñoom sàcc yi buñ jiitalee jur gi ba yegg si foofu rek ñoom ji daal di rek su ko defee ñoom ñu daw bàyyi fi jur gi ñu jël seen jur yóbbu mm-hmm. gis nga nga ni mu yoon bi maanaam yow sonnoo ci nekkoo ci dox di wër ba sonn wóor na la dugg nañ fii rek te yàgg-yàgg daañu génn da nga ko da nga ko contourné ngoo nga kar ko foofu daal di tëdd yow uh-huh. te guddi nga koy def loolu moo tudd rasdu xam-xam la bu wér bokk ci xam-xam yi gën a gën a gën a wér kasaali kii itam noonu la amee ci tabixa tabixa bu nekk dafa am ay xasaa isam ci misaal ñi nga xam ne seen tabixa naar la nit ñu am wërsëg la ñu doon macha allah mais dañuy dañuy am tempérament dañuy gaaw a mer waaye feebar yi lu mel ni sites ay humidité boo xoolee ñoom la ëpp lu ñuy sonal. Hmm. ba ci impuissance da leen di sonal maanaam feebar yi biir yooyu feebar yu biir. feebar bi nga xam ne ci biir la ne waaw ah, kenn mënu ci dara feebar yooyu da leen di da leen di sonal. nga xam ne waaw ah, mu siiti yooyu. yooyu mooy seen kii ba noppi ñoom itam ñu am beneen cas mooy seen yaakaar day tas lu bare bare bare. maanaam boo leen diggee dara sax danañ xam ne lii duñ ci jot ndégam ndégam digg gi am na rek duñ ci jot mu jara da nga dig leen ko rek ñoom génnee nañ ci seen xel dégg nga loolu benn la beneen bi mooy bu ñu lijjanti dara procédure bi muy jël pour pour sotti dafay yàgg mooy ñi nga xam ne daanaka boo seetee seen soxlay daaw mooy yu ren yi mooy yu daaw yi ba tey sotteegul mm. ñoom seen mbir na la tudd nga xam ne mën nga ko topp noonu ba benn bu ci nekk jeex ci ci tabixa yi pour rek lenn lu ci nekk ñu tënk ko mm. léegi nag li nga wax ci rawxaan defe naa nga wax hmm. foofu nag am na benn sew-sew dafa am lu tudd arab di tuddee alqarina kooku moom yàllaa ko moo ñaaleeg nit ki xarina mooy lënkaale li nga xam ne dafa lënkoo ak yow. loolu la nit ki naan la oh, hmm. kooku nag dina wax ak nit ki dina dimbale nit ki kooku kooku lu am solo la. Hmm. bu ñu neexee tuddee ko sax fii rawaxaan ngir nit ñi mën ko comprendre. mooy rawxaan bi nga xam ne yàllaa ko moo ñaalik nit ki nga xam ne moom ci nit ki la nekk ci nit ki la bokk kooku ci nit ki la bokk kooku nag yellante woon nit ki xam rawxaanam boobu lan la bëgg bu dee lu muy sol bu dee fu muy dëkk bu dee bu dee bu dee mu xam ko di ko topp kooku buur dund gu neex la mën a am waaye nag bu fekkee ne dafay xool toujours li rawxaan bi bañ mu di ko def moo xam sobe la rawxaan bi bañ moo xam rawxaan bi daal bëggul tukki bëggul tuxu bëggul dégg nga yooyu rawaxaan bi bañ mu di ko def su boobaa mbiram toujours day gën di dellu ginnaaw day gën di am day reculer rek ci ginnaaw rek la jëm dégg nga mbiram noonu lay demee. kon rawxaan léegi nag mu des beneen rawaxaan boo xam ne nag du loo xam ne yàllaa ko bindaalee nit ki mais sëriñ bi jàng la saraat te xam ko moom mën na ko créer ci misaal bu ma daggoon ab xaatim sol ko ba noppi léegi ci biir xaatim bi mën naa ci créer ay rawxaan mm-hmm. comprendre gu baax booy créer rawxaan nooy def. siif yaa xam xutbu baytul xutbu bi nga soxla ci misaal nga ne ah man ka li ma bëgg a liggéey ci xaatim bi rawxaan bi ci baytul xutbu bi rek laa ko bëgg laa ko bëgg a génne léegi xoolal baytul xutbu bi ban chiffre moo fa nekk ci misaal nga ne ah am na 1223 ci misaal léegi nooy tëggee rawxaan bi da xool chiffre bi ci gën a ndaw xam nga mille 1223 kon 3 boobu mooy jiim nga ne kon jiim laa njëkk a bind comprendre est-ce yaa xam li may wax bu baax waaw ci misaal nga ne kon jiim laa njëkk bind lu ma waxoon 1223 23 hmm. kon jiim gi lu ci topp nga ne ah kon kaaf moo ci topp nga mooy 20 bi nga bind kaaf 1200 hmm. laa waxoon hmm. lu ci topp 200 200 moom mooy raa nga bind raa dégg nga siin bi moxjam bi moo ci mujj di kii su ko defee nga bind siin bi léegi nag pare nga léegi nag rawaan ah kay li chiffre mooy lépp àddina léegi tëj nga ko ba noppi ñu ne la rawxaan kii la sant mu ngi mu ngi sant yaa iilu léegi nag su boobaa dañ naan la da nga ciy sof yaa iilu rek mu mu daal di jeex donc noonu lañ koy noonu lañ koy tëggee su fekkee ne yaay xam nag yow ndax li nga soxla benn rawxaan bi nga soxla ci kii bi rek nga koy mën a dagg wala da soxla dagg ko ci euh, kaat kii yi ni ñuy tuddee tabaax yi wala dangay soxla jël ko ci lépp lu ci am solo rek mooy bëri na ay façon yuñ ko mën a jaaree waaye loolu nag day fekk nit ki. Mm-hmm. xam bu baax a baax naka la ñuy daggee xaatim te bañ caa juum ak naka la ñuy génnee rawxaan bi ndax boo juumee rek moom musiba lay indi contraire li nga doon def xaatim lu lu dangereux la. benn léegi nag. kon gàddu nañu ah waaw yombul non du ay lii du bakkan du ay bakkan bakkan yóbbul ci kenn jàng lay laaj bu bu dëgër nag léegi nag rawxaan boobu lu tax nga di ko dagg ndaw la ndaw. ndaw la woo xam ne danga koy yónni mu doxal la mu doxal la mission loolu rek moo tax nga di ko dagg comme nga ne ko diw mu ngay layoo ca tribunal ba nekk euh, ci misaal ci mu ngoog demal nga taxaw ko. ceex na loolu rek mooy liggéeyam moom euh. leer la goo xam ne yaa koy këree su ko defee nag yónni ko yebal ko yebal gi it mooy. kii boobu ngay jël di ko liggéey ci misaal yaa kas fiyaay lu yaa kas fiyaay nga di ko liggéey yaa xam nombre ba nga koy liggéey ak la mu laaj ak waxtu nga koy liggéey waaye loo ci def rek yàlla da koy barkeel da koy sottal. Hmm. Hmm. Hmm. kon sëriñ bi di wane. taxawaay bu dëgër. sëñ Fallou. am ci ñaan yàlla. bokk na say succès li may wax saa su ne. mooy xam-xam bu wér ak toog ci lu wér. waaw loolu de moom mooy baas bi ndax def naa yàgg naa ko fi nettali sax kilifa gi dafa ma daan wax sant ma lu dul jàng kese la loolu rek laa la sant moo tax euh, mbir mu mën di doon rek buur li sëñ Tuubaa waxoon ci tasudu subaan wax na ko ci tasudu subaan mu ne yaa maxsara subaan yaa maxsara subaan in xiftumoo xajal fa xaddimoo taalluman xalal amal loolu mooy lan mooy yaa maxsara subaan yin boole wax mbaane yi xale yu góor yi laa wax nag xam nga métier yaa ngi koy jàngee ci bi nga doonee xale bu góor. Mm. xam kenn du doon di ba màgget di jàng métier wala di jàng xam-xam lu mu mën di doon xam-xam mu mën di doon wala bépp métier wala lépp loo bëggee exercer loolu Sëñ Tuubaa nee na na nga ko jàng ci bi ngay doon ndaw. Mm. mu ne bu ngeen ragalee jàkk gàcce daal ci lépp mën di def boo ci ragalee gàcce na nga jiital xam ba noppi maanaam na nga ko xam ba noppi door caa jëf. Mm. in xiftu moo ndéem ragal ngeen xajal gàcce faqaddimoo na ngeen jiital taxal lu man jàng xalal xamal ci jëf waaye lépp lu mu mënti doon rek sëñ Tuubaa nee na balaa ngaa jëf loole nanga jàng ba xam ko te am na feneen sax fu mu wax ne nit ki nga xam ne mu ngi jëf te li muy jëf xamut lan la yaa ngi dégg li may wax bu baax mm. maanaam rawatina ci wàllu cadre diine maanaam kooku mooy ki nga xam ne mu ngi sànq boppam mu ngi tooñ boppam mu ngi mu ngi mu ngi ci ak perte waaw mu ngi jëf loo xamul quoi donc loolu mooy li may wax rek mooy indi sikkaange yu baree bari ndax bu fekkee yow danga jëw ci ni mbir na xam nga ko nit ñi gis la ci wóolu la ci di leen jox seen yëf te doo def dara lu sotti loolu mooy indi sikkaange mooy indi gàcce itam gi Sëñ Tuubaa wax foofu mm. xitu moo xajal ji kon moo tax xam-xam bi moom mooy li war a jiitu ak na nga koy sàkkoo nag ak niñ koy jëfee ba yàlla barkeel ko yooyu yëpp itam leneen lu ci dolleeku la waaye nag xam-xam bi moom moo mooy li war a jiitu moom. Hmm. xam-xam bi mooy li war a jiitu. Hmm. mu ngi noonu Serigne Fallou Dramé. Hmm. yow mi may seetaan numéro baa ngi noonu aajo boo am. incha allahu rabbi boo jëlee numéro bi déggoog Serigne Fallou dana ko ceet ceet gu leer te incha allahu la mu la cay waxit bés bu ngeen ci jëflante di ci gis xéewal di ci gis tawféex. kon sëriñ bi in uridu islah mastataxtu wa ma tawfiqi illa billah ali tawakkaltu ilay unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah